jàppee moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show mbokki téléspectateurs yi dellu siwaat nañ ci kàttanu yàlla ci seen télévision Walfadjri ak seen site bi di solution info tv ñu dellu siwaat fas yéene ànd ak yéen diirub 1 minutes ci seen magazine bi lee di takku show ñu nuyu téléspectateurs yeeg euh, internautes yi di leen ziar bu baax a baax tey nag ci talaata ji dinañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat Omar Bun Xataab Gay seq waxtaan ak ngo journaliste bi di Ngoone Saliw nekk foofu lee ca sans limite dinañu seq ak moom waxtaan bu ca noppee jàll ci actualité du jour ma jigéen Diop Dieng la victime du net ci àndal ndar képp bile jotaay ak nepad musical ak Soukambay Daane yëkkati bile jotaay Omar Bun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax di la fay di la nuyu di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu boroom ak kàttanam di sant yàlla bu baax. Mhm. di la ziar di la nuyu bu baax a baax ah. Mhm, waaw maa jigéen mi ngi may xool xamul daal du ma la apprécier yëfu jàmbur nga <laughs> baal may apprécier. loolu sañoo ko sax <laughs> loolu de. sañoo ko su ko mais sañ naa ci sukaa sukaa jëkkëram sama xarit la. même bu dee sa xarit sañ. ah sukaa sukaa sukaa sama jigéen la. waaw waaw waaw garaaw maa jigéen comme waaj daa sori ah dañ ciy def nànk. waaye xam na ni ñoo allah mi ngi doon ah. di la nuyu yéen ñëpp di nuyu El Hadj Ndiogou saa di ko ziar bu baax a baax euh, taalibe seen sidi mu sëriñ Abdoulahad Mbacke mm-hmm. di nuyu bu baax euh, sunu gan gi Ngone Saliou mm-hmm. euh, di ko yàgg gis mu sori tey nag mu jege ñu nekk sunu gan mm-hmm. di leen waxtaan ci liggéeyam ak taxawaay bi ak daal chronique yeeg sans limite ak na mu fa nekkee ak terrain bi yooyu yëpp dinañ ci dikk incha allah di nuyu Souka di nuyu Boubacar di nuyu Assane Besere tamit di rafetlu bu baax jàppale bi ah Assane <laughs> ñu lay jaajëfal bu baax a baax di nuyu su ma moytu <laughs> di nuyu sëñ Sidi tey bu ña Cheikh Samba ak ak waa Géej waaye di nuyu DJ Omzo nag ah. DJ Omzo waaw di ko nuyu ku baax la. nit ku baax waaw koo xam ne da lay tudd ba ñu bari naan ko kan mooy Omar Gueye. ma ne ko billaay sama xarit kase ga. waaw defaluma dara yow baax rek. Mm. waaw noonu la kon maa ngi koy gërëm baax di ko sant di ko ñaanal. Mm. kon ajaratu kàddu gaa ngi noonu. ay ci ci kanam tuuti ñu dugg ci waxtaan bi ma jigéen Diop Dieng Sall maa ngi lay nuyu sama rakk ji man sañ naa apprécier man. waaw ah? <laughs> kay nuyu naa la. ajaratu maa bu baax a baax di la ñaanal jàmm di wax sañ sa bi rafet na macha allah ah, di nuyu nag Omar Bun Khattab Gueye mhm. ah, di ko ziar di nuyu nag sama xarit bi docteur Meng moom sama waay la moom wax dëgg moom bu mm. ko neexee rek mën na ma wax amul problème <laughs> dama permis <laughs> waaw démb dignité la ma indiloon xaw ma tey nag lu may indil <laughs> waaw maa ngi ziar téléspectateur yëpp nag di nuyu suñu gan bi Ngoné Saliou Diop mi nga xam ne dañ ko doon suivre de près saa su nekk rek nuyuwaale su Kambaay ak euh, beneen gan bi naa ci kanam tuuti dina ñëw ñu ngi mm. nuyu ñëpp ziar ñëpp ziar nag waa Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal nag Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahat Mbacké ki mhm. yàlla suñ borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak wér defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yépp ah, di eh, wax ni nag ci kanam tuuti daa ñu ñëw nag eh, ci eh, problème yooyu dox ci Ousmane Sonko mhm. radiation am yeeg nga xamante ne ni dañ ko yóbbu woon fële ca CEDEAO mhm. la ca am dinañ ci ñëw léegi léegi daal di koy gën a yaatal incha allahu rabbi ajaratu ci kanam tuuti lay doon alaaji maa ngi lay nuyu di la ziar taalibe sëñ Sidi sëñ Adja ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaante ci yaw di dem ba Touba nuyu xalifa dem des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànn ak wér. Mm-hmm. waaye di nuyu di ziar sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ mm-hmm. Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànn ak wér. di ko ziar wér nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër ga. Mm-hmm. di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu nañ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarim wax la nuyu kilifa diine yeewoo ci biir réew mi. ñu ngi nuyu maman Dieynaba Fall kooku sunu maman mais di nuyu monsieur kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu Umar bun Xataab Umar ñu lay nuyu di kontaan ci yow macha allah di la ñaanal jàmm di nuyu Ngone Saliou mhm. waaw jigéen ju <laughs> jigéen ju mën góor macha allah <laughs> euh, taxawaayam am solo torop ci réew mi vraiment nit ñi di bàyyi xel bu baax a baax a baax ci yow waaw loolu nag nekk lu am solo mhm. waaw te euh, gis nañ daal njàmbaar gi waaw jàmbaar gi nga xam jàmbaar <laughs> moo tax ma ne Assane Besere xam nga fële Oustaz Assane a fi man ci wàllu invité fii Assane a fi man waaw parce que <laughs> xam nga Assane <laughs> moom Assane de mu nee ma bi laa kii ma ko ah boobu laa ko waaw loolu moom am nañ ci mbégte bu baax a baax vraiment mm. dalal ak jàmm mm-hmm. kontaan nañ bu baax a baax di nuyu bu baax ma jigéen Diop macha allah ndaamaan la mm-hmm. Mm-hmm. waaw moom ndaamaan la quoi allah dignité dignité <laughs> xam nga yaa ngi koy jiin Omar moom mii moo fi indi woon dignité démb <laughs> non dama ne buy daanu sax ci dignité lay daanu ah, noonu la di ko ñaanal jàpp d'accord mi ngi euh, noonu ñuy euh, dalal nag am plaisir dalal la batant man dama la tuddee Zeyna wu presse bi di la nuyu di la ziar Ngoné Saliou Diop amat plaisir dalal la fi partagé biti maa la gën a kontaan ba ñu bokk ak yéen plateau bi di nuy ma jigéen di nuyu Omar di nuyu euh, Sandiogu fii moom sama kër la. waaw voilà di nuyu Souka bu baax ak seen gan bi di gërëm Assane. <laughs> parce que moo facilité dafa am dama wàññi sa loxo force da ngay ñëw. waaw may ma sax fu ma waxee. donc moom dafa maa forcé. lakkale la def. <laughs> Uh-huh. waaye boobu Assane Mesere moytu ma <laughs> Assane moytu ma mais heure yi ma la wax ci la ma envoyé gis nga kii ba ma moytuwul di nga dégg ne xaaj naa ko ci kër gi. nekkatul sa xarit. non bàyyi naa ko parce que yi may envoyé message bu ma nekk bu mu dellu si waat mu dugalaat. <laughs> heure bu ma ko dara daal bu insomnie di envoyé ku nekk naan. non bu fa yaayam nekkee da koy jël lax soxna si ba pare sëgg ci ba mu dellu si waat xaaral rek. Eh, ayca mi ngi noonu waaye nag nit ku baax la moom Baye Assane Mesere ñu ngi koy ñaanal jàmm ak salaam ayca ñu jëli lu ay di njàmbat. Omar ñu bàyyi laag ah Omar da mel da nga yàkkamti tey ayca ma bàyyi laag moom bo gën ngay tax ah. <laughs> ayca mi ngi doon kon man Assane damay sant ah comme ruus na ma man Assane waa ruus. Assane boobu <laughs> kon damay sant kon di la nuyu bu baax nag. ni ko ñëpp waxee mhm. dëgg la waaw. Ah. lu ñëpp xam moom loo jox mu doy Ngone jàmbaar la. waaw mhm. ah, mais Ngone daa am lu gars laaj. muy da laa gisatu ci terrain lu xew. moo ne maa ci terrain bi nag actualité moomatu ci terrain bi. xam nga ah. euh, dafa toll ci jamono joo xam ne saa boo xëyee am na manifestation moo xam bu ñu autorisé moo xam boo xam ne non autorisé la ci jamono ji nag booy xool loolu amul plateau ngay mun a def wala li nga xam ne mooy ay chronique comme yéen ni ngeen koy defee waaye terrain bi moom cee jóg. ñu mhm. ngi ci ba léegi tey lañ ci gën a nekk. Ah, tey ah, dugg Ousmane Sonko moom xaw na manqué. waaw dugg Ousmane moom ku ko wax ak ku ko wax yëpp xam ne matière amagul. parce que Ousmane Sonko bu daan dem tribunal ci nga koy topp. Mhm. Euh, bu ñu ko woowee procès euh, ci ngay dem pour couvrir ko. Euh, donc bi ñu ko téyee ba léegi à information yi ngay am ci état de santé am information yi nga xam ne yaa ngi koy am ci ay avocat yu ñuy sàkkoog yooyu loolu la ngay mën a traité te ci plateau nga koy traité parce que mënoo koo traité ci mbedd bi mënoo koo traité ci manifestation. Mhm. ah tout d' abord ban nga am ci arrestation Ousmane son ak actualité bu Euh, ba nekk ci feebar euh, am lu fiite génn ci moom loolu ban jàngat nga ci. xam nga dafa am ñaari mbir muy mbiru Ousmane Sonko man li ma yàgg di ko wax ci euh, jàppam parce que man damaa nekkoon au cœur mooy convocation Ousmane Sonko bañ koy woo bañ koy téye ba li am dama mhm. fekke donc lu bari couverture bi yaakaar naa dama dama def couverture boobu. Mhm. bu ñuy wax ne usman Sonko dañu koy jaay doole teguñu ko ci lu neex nit wala dana koy teg ci ay fee. Mhm. ay fee mooy lan. Euh, ci nit koo xam ne da nga ko convoqué euh, muy dem di wuy ji mhm. ci euh, période boobu muy dem wuy ji ñu teg ko loxo di ko toppee trouble à l'ordre publique mhm. ñu jël ko yóbbu ko section recherche gendarmerie foog naa ci jamono jooju li ci xew Sénégal kenn mësu koo gis ci ay Ousmane Sonko rek lañ ko lañ ko gis ñu jël ko bàyyiwaat ko mu jógee tribunal di ñibbi si këram ñu arrêté ko fi nga xam ne moom mooy ci tunnel bi toj otoom jël ko gàddu ko gàddu avocat am yóbbu ci këram. Mhm. te boobu ñëpp ñu ngi toog ñu ngi seetaan ndaxte ay images yu wax du loo xam ne nit moo ko inventé. dafa mhm. nekk ay faits yoo xam boo duggee ci internet bi tey. Mhm. danga ko fay fekk. loolu la ñuy tuddee ne Ousmane Sonko dañ koy jaay doole ñu koy tuumal pendant deux ans viol. ak menace de mort. ñu dem ba ci càppaandaw gi fi ñu ko yóbbu ci bërëbu attekaay bi muy chambre criminelle ñu toppee ko corruption à la maanaam viol bi dañ ko teggi tege ko fee. kenn waxul muy xiifal. ñu ñenn ci ñu nekk ci gouvernement bi ne usman Sonko day tappale am ñoo xam ne sax génn nañu ci ay taskatu xibaar mm-hmm. ne amul lenn loo xam ne jar na ñuy wax état de Sonko usman Sonko c'est pas alarmant mm-hmm. ñëpp toog di seetaan léegi bu Ousmane Sonko wootee résistance ñu ne euh, nitu fitna la pendant que ñuy wax nitu fitna ñu ko doon aaye conférence de presse ñu ñu doon dem ñu ñuy bokk ci ñi ñu doon gazé. Mm-hmm. wala ñi nga xam ne ñenn ci taskatu xibaar yi ñu am ay gaañu gaañu ñu ñu jàpp période boobule am ñu nekk ci nguur gi ñoo xam ne ñu ngi amal seen conférence de ci jàmm ak salaam. te loolu foog naa ñëpp fekkee nañ ko mhm. donc bu ñuy wax euh, Ousmane Sonko dañ ko jaay doole wala bokk na ci euh, politiciens yi nga xam ne li mu daj ci Sénégal mhm. néew na euh, ku dugg ci wàllum politique nga ne kii kat li mu daj Ousmane Sonko daj na ko mhm. peut-être bi foofu lañ koy teg léegi balaa may jox saa def nga genèse bi fi mu tàmbalee ba fi mu egg fii résumé ko mais tey ji danoo toll ci benn situation boo xam ne mi yow di man di keneen ak keneen benn moment mi ngi tëdd hôpital ñëpp a soxla information ci Ousmane Sonko. comme li nga wax am na benn presse bu jege nguur gi man dama koy wax danoo jege nguur gi. parce que bi ne dafa feebar ñoom danoo génn day tappale man damay jaar ci kàddu yi ministre sax ci jamono jooju mu Ismaïla Madior Fall dafa taxaw ci conférence de presse waxul ci lu jëm ci grève de la faim mais dafa taxaw ne Ousmane Sonko naan na café tey ci ngoon. waaw maanaam dugg ci loo xam ne c'est privé. Mhm. Ousmane Sonko la appartenir. tey jii ab kayit génn ñu jàpp ci ay nit est que loolu dina faciliter liggéey ku na yow xam ne. day gëstu pour am information jox ko nit kii bu dee ni tey jii risque dafa nekk ci génne ab kayit te ki génnal kayit gi Ousmane nee na toppewu ci kenn dara moom porté plainte deful dara alors que procureur am na yu fi ne mu bakko fi ñëw topp bi ba jàpp ci ñaari nit est-ce que ku mel na yow xam ne da ngay gëstu di def investigation est lii du la limité ci sa liggéey. man kayit gi su ma ko njëkkoon a jot ñi ko partagé dama koy partagé ndaxte dañoo toll si jamono ñu bari dañ doon laajte lan moo jot Ousmane Sonko. ñenn ñi day tappale ñeneen ñi féete ci moom à chaque fois communiqué ku ne danga koy jot. Mm-hmm. ay avocat am di di alerté ku ci mel ne Juan Branco ne Ousmane Sonko mi ngi entre la vie et la mort ñenn ñi di ko soofantal. léegi kayit gi moom c'est tellement simple mooy la ma waxoon ne procureur soxlawul muy ubbi enquête di xool kan kan moo génne kayit gi. Mm-hmm. d'autant plus que kayit gi euh, euh, médecin moo ko bind. war ko yóbbu ci administration pénitentiaire la ñu ko jox ngir ñu jox ko euh, ministre de la justice mm-hmm. léegi lu jóge ci saa njóogu ñëw ci yow ci diggante bi kan moo fa nekk ak kan moo am intérêt pour kayit googu génn pour askan bi gis ko mm-hmm. mu am ñaari mbir yoo xam ne dañ ko analyser muy état de santé Ousmane Sonko 40 degré la am dafay def ay propos yoo xam ne c'est pas cohérent mi ngi wàccu muy état de santé ki nga xam moo jot nit ki waa procureur baaxum wootewul fii conférence de presse ci tribunal taxaw ne Ousmane Sonko état de santé nii la toll. daf dafa dem dafa wax ba wax Ousmane Sonko asma bu mu am. loolu am na secret médical bi est-ce que nit ñëpp xamoon nañu ne Ousmane Sonko dafa am asma xam nga xamoo ko woon procureur moo wax moo tax nga xam ko. muy benn kon secret médical kon secret médical violé nañ ko te ki ko def waru ko woon def ci sama xalaat mhm. léegi euh, dossier bi génn kan moo génne dossier bi Juan Branco mi nga xam ne moom dafa am bàjjen ci dëkk bi mhm. dañ ko placé sous contrôle judiciaire bàyyi ko mu aw dugg ci avion dem def conférence de presse ci jamono jooj nañ ko boole dossier ñu ngi ci kaso bi ba léegi kenn waxagul seen ay wax mhm. moom mu taxaw ne këyit gi maa ko génne dédouané ñëpp doy waaw léegi ñi nga xam ne ñoom dañ koo génne nga xam partage li ñu def muy euh, euh, Jabo Tayou Sarr mhm. muy Fatima mhm. daf koo partagé trois minutes mu effacé ko mhm. waaye am ñenn ñoo xam ne comme ñoom ñoo leen seen liggéey fekk na capturé nañu ko ba boole ko xanaa kooku booy def njekk rek ci jigéen buy nàmpal man amoon na war nga ko mun a bàyyi pour des raisons humanitaires ndax moom dafa partagé du moo génne xam nga luy problème ka génne dafa am intérêt pour kayit di wala ndax dañ koo sant pour mu génne ko ndax loo xam ne fii la jóge dem fee bu génnee procureur war na xarañ xarañ koo xam ne war naa xam kii ji fan la mën a jóge mm-hmm. d'autant plus que ko ko génnee taxaw na tweeté bi ne ci page Facebook am ne man avocat Ousmane ko maa génne yemuñu ci loolu ba mu procureur bi ne ne dafay def euh, li nga xam ne moom mooy euh, enquête pour xool dossier médical kan moo ko génne mm-hmm. ay avocat Ousmane Sonko dañu ko tontu nekk Ousmane Sonko n'est pas demandeur à ce que ñu génnee wala ñu xool kan moo génnee ay dossier médical am déet mm-hmm. lu tax Ousmane Sonko jàpp nañu ko foo xam ne yow newoo fa béti nekk fa ma jigéen nekk fa ma nekkuma fa ñu gis ay photo Ousmane Sonko ci pique bu gendarmerie mm-hmm. ñu gis armam bu am euh, autorisation gis ay téléphone portable ñu photo ko def ci Anita yi boobu ana procureur damay laajte ndax boobu procureur jëloon na fonction wala ci jamono joo ci nekkoon dafa fekkoon Sénégal amul procureur macha allah ngoone jàngat bi am na solo ngoone mi nag ngoone indiwoon sooy bu woon na ko fi victime di net euh, mooy bi ko fi gars yi di tuumaal. mais aussi tamit euh, mais aussi tamit euh, defe naa ne plateau bi ñëpp moom sa liggéey la ñu wax. mais li ngay liggéey la ñu gis muy loo xam ni ay fee yu ne fàng parce que damay jàpp sax ne femme boobu Anita moomu. Euh, di génne xibaar yi yow est waaw mu waaw xam nga comme le fait que ñu wutal ko turu jigéen le fait que ñu wutal jigéen ma damay jàpp ni mooy yow bokk nga ci li tax sax ñu créer Anita parce que dafa toll benn période boo xamante ne bi xibaar yi génn yëpp ci ngóone la ko nit ñi di suivre parce que da nga nekkoon ci euh, mbir yi dëgg dëgg dëgg dëgg léegi nag Omar boobu wax na wax ju am solo ci li nga xamante bi mooy sa liggéey ci ak yi ngay gis ci jamono ji nga xamante ne bi yéen daanaka yéen ay def révélation yi ci pénc mi mm-hmm. te mu mel ni loolu crime la fi léegi ci réew mi mm-hmm. yàq say famille nan la ñuy dundee loolu parce que bu ñuy gis ñenn ñoo xamante ni bi tey ni ngay liggéey ci la ñuy ne mm-hmm. mais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 ñu bari danoo jàppoon ni ñoom da lay protéger sur le terrain parce que gis ni ngóob ne muy egg ci terrain bi dégg lu ma wax li nga foofu ñun suñu ba bakken hmm. ñun bu ñu ñibbisee yàlla moo tax ñun ñu ñibbisi Ziguinchor Ziguinchor xale bu am 14 ans ngay romb foofu du euh, si Ziguinchor nekkul cité kër góor gi hmm. ñooy barricade mais fay ñooy barricade ba police du egsi <laughs> gis nga ñun dafa mel dañu amoon laissez-passer takkal ñu mosoy xonq ñun xale yi hmm. pour ñu xam ne ñun ay journalistes pour ñu mun di jàll dem di jënd lu ñu lekk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 si ñu la doon suivre wax dëgg yàlla tout le soo nekkee euh, damay bàyyi lépp ñëw di la suivre mais man damay génn si côté euh, aspect politique bi tuuti parce que fan yii dégg nañ coowal Ndeye Gueye bi. Mhm. Euh, que ni yow yaa taxaw wax ne war na tal leneen du dul anytime war na dem defar seen kër ak yi ni mel est-ce que loolu. nit ñi niñ ko interpréter yow interprétation boobu. xam nga ndaw ma ci woon sax wax. Mm. mais pour respecter leen moo tax ma ciy dellu si waat ndax mi ngi ci yoon. xam nga tax mi ngi ci yoon. man maa saisi di yoon parce que nga nit. Mm. man euh, nekkul damay tagg sama bopp wala mais duma dugg ci vie privée jàmbur. Mm. parce que man loo xam ne bu ñu ma ko waxee mu metti ma du ko wax ku ko metti sànq laa koy woon euh, lëx ak euh, sooyu bu vidéo bi li ma ci wax dañ ma ne. Ndeye euh, Gueye li mu doon def ci sa ban jàngat nga ci am man nag wax dëgg yàlla sénégalaise laa te am naa sañ-sañ di wax sama xalaat ci dëkk bi parce que loolu laa opté ma ne leen si sama début propos Ndeye Gueye moom moom xaalisam bu ko neexee sànni bu ko neexee def lu ko neex ma ne man personnellement su ma neexee mën naa woote anniversaire loolu man la concerné waaye nag ci àdduna nit da ngay am priorité ma ne je comme mbëri nu ñuy def li ma wax foog naa vidéo la ku ci am xel mën nga ko dem seetaan parce que loo xam ne direct la mënoo ko dagg mënoo ko copier mënoo ko kole li may gis ñuy defal yenn chanteurs yi yenn waykat yi ñu dem ba tële di def ay quête ak yooyu man je préfère investir am kër gu ma dëkk ba bu ëllëgee du ma quête pour mes enfants loolu de laa wax am nag ñenn si ñoo xam ne ci presse bi nekk jël ko titré ko titrage boo xam ne peut-être moom ba mu xoolee dafa waroon dugg ci vidéo bi déglu la ma wax ma laajee ci sëyam tam dama ne loo ko mën a waxal itam xam ni ma ngay sëy sëyam donc dugguma ci vie privée am xooluma kër gu mu dëkk xooluma ndax dafa luyee wala dafa ñàkk luyee bi ñu ma laajee sama avis man bi nga xam ne bu man noonu lay def loolu lay wax ki koy interpréter nag mun ma dugg ci xelu nit lu tax ma porté plainte mooy rakkam dafa euh, jël live toog di saaga man kenn ma saaga parce que man saago ma tugguma seen vie privée ñu keneen koo xam ne bëgguma sax dugg ci ay tur parce que am na ñoo xam man bëgguma di wax seen tur di leen may bës ñu toog def seen ay live xam nga ñu dañu xam mu internet du nekkul lu la neex nga koy utiliser nit bu la tooñee tey ndeygee bu fekkee dañ ko diffamé wala ñu tooñ ko am na droit dem saisir yoon ne ñi dañ maa tooñ ñun ñu dem toog ku ñu tooñ nga xam ne yaa tooñ ku am dëgg nga xam ne yaa am dëgg mais nit bu la tooñ nga ne déjà man jàpp naa ne tooñu ko parce que waxuma lu ëpp wala dugg ma ci vie privée ba moom muy toog ay waa këram ak yooyu ku nekk di am loo ci wax comme ci yoon nag nañu bàyyi yoon def liggéeyam Euh, mais Ngoné euh, gis nañ la sanq yaa ngi koy wax ma la koy wax di la féliciter d'abord parce que des fois risques yi ngay jël man raar na ma gis journaliste yoo xamante ni mën naa leen tudde ay journaliste de salon yoo xamante ni dañuy dañ ma bàyyiwul nag kooku moom wax naa ah, bàyyiwuñ la bàyyiwuñ ma ah. wax naa leen dama bëgg dem Palestine bañ nañu sa rédaction waaw xanaa ngeen jàppale ma ci. d'accord et sans limite bàyyi leen ko mu dem. <laughs> waaw muy loo xamante ni ci loolu laa jëm risque yi nga xamante ni tout le temps sa liggéey da koy day ànd ak sa liggéey ak euh, yeneen yoo xamante ni man man jigéen man bu ma doon man la may dem ci terrain bi moom damay tànn ya may dem ak ya dul dem wax dëgg yàlla parce que damaa bëgg sama yaram mais yow gis nañ ni tu te doon à fond te ragaloo ku la wax ni diw nga faral wala diw nga àndal wala dara ndax ci sa euh, liggéey. mës nga ci am benn kaa boo xam ne tey jii boo ko expliqué lu la touché la lu touché say mbokk la. waaw xanaa liñ ma fi tuumaal. man loolu rek lu bëgg lii nii. Mm. moo ma gën a metti xam tax gis nga nit buy liggéey. Mm. Euh, soo ko mënul encouragé ci lu muy def mm. dangay ngay xipp say bët di ko xool tey euh, bu ñu la tuumaalee mënoo fu nekk nga demaat toog ne ah man da li ñu ma waxal defuma ko. Mm-hmm. da ngay toog. fexe ba lañ la tuumaal bu ci nit teg bëtam ndax bu ci nit tegee bëtam nga am gàcce mm-hmm. ci kanamu askan bi yëpp te loolu man damay defee ki konk fii laa koy defee mm-hmm. nit mënul andi firne ni kii la ñu koy waxal dem na du xaalisu Macky Sall bu ma lekk mm-hmm. du xaalisu Ousmane sonk bu ma lekk man gis man su ma amoon xaalis sax ñu laaj ma ko man ba may liggéey ñoom liggéeyuñu tey dama war xoolal gis nga waaw maa ngi sant yàlla bu baax yow yow Betty. mais dafa dëgg la Betty la grande question mooy lan saa njóobu ah. lan lañ tuddee am xaalis. waa déglu ma maa ngi sant yàlla xam nga tax xam nga tax maa ngi sant yàlla waa déglu ma te maa ngi waaj demaat. bu fekkee looloo tax maa ngi waaj a demaat xam nga lan moo tax ah, dafa am ñoo xam dañoo choisir lu lu yomb man dama choisir di liggéey di ñàkk ñëpp xam ne man damay liggéey su ma neexoon ma toog muy dox comme ñeneen ñu ngi koy defee wala ñu dem uti appartement man sama kër laa dëkk dëkkuma ak góor loolu ma appartement sama biir kër su ma yow sama famille laay yeewoon dool donc lu ma am maa ko may sama bopp bu fekkee dem Dubaay la su ma neexee suba ma demaat Dubaay bu fekkee jënd ak jaay ma def ko xam lu tax man ba may liggéey nekk ci presse boo xoolee samay vidéo da ngay foog ne jànq du xamoo sax lu may nduwa parce que tellement que ñuuloon naa ñaawoon naa gis nga ba fa bayot 2015 ba ñu fa reyee 17 personnes ci ci kii ba armée di ñëw def si asso mhm. maa ngi fa woon boobu ñu nekk ci presse beeg ñu naan dafa am nekk ñu fa woon déedéet Dakar euh, Dakar euh, dakaar Actu mhm. maa ngi fa su ma doon image da nga naan kii ndax moom la ba may dem dañ ma ne yaa ngi dem yaa ngi ñëw def naa fi une semaine ñaari yëre laa doon sol te dama doon liggéey nekk foo xam ne kenn dem fa jour ba ñu fay dem béti ma wax la mhm. dem nañu foo xam ne ci euh, route benn xaw ma damay bañ a juum xaw ma la ñu koy wax lan def ba pare ci ngoon ba ñu paree dafa am ay rebelles yu def communiqué wax gis nañ fi presse bu fi taxawoon nag wax ko ci seen communiqué. Mm. ak kii nga xam ne tey jii jàpp nañ ko muy euh, kii nekk chambre criminelle man mi maa ko interviewé woon ci jamono jooju ki ne rebelle la te ñu jàpp ko chambre criminelle man maa ko interviewé woon. du du du Kabline keneen la ci affaire Bofa ci affaire Bofa Bayoy bi ah, te ñu téye ko damay euh, ah, fàtte tur bi du journaliste de mm. kooku dañu wax ne rebelle la. Mm. kooku ah, man maa ko ñu téye ko man maa ko ànd xam nga lan mooy am xaalis mooy nga sox soxla soxla. fajal ko sa bopp. tey ku bëgg am xaalis ñi nga am na ci journaliste yoo xam na lan la ñuy choisir fu am cocktail la ñuy dem. fu am per jom la ñuy dem man maa choisi dem fu am lacrymogène nañ ma bàyyi ak samay lacrymogène xam li ma ci gis man maa ko gis <laughs> waaw juste rek une dernière question balaa Omar di ñëw parce que xam naa ni temps bi jeex na waaw sa euh, à l'entame de tes propos maa ngi la dégg nga naan man aw ma ndey aw ma bàyyi mais Euh, am na ay euh, mbokk ak yooyu. mais mais des fois da ngay toll période boo xamante ni da ngay xalaat waajur. Mhm. parce que wéeruwaay la ñuy nekk. parce que mhm. dinañ la ñaanal yeneen ak yeneen est-ce que des fois doo di dund ay situation yoo xamante ni danga naan bu fi sama yaay nekkoon wala bu fi sama papa nekkoon. mais c'est tout à xam nga bu ñu la yoree tàggat la ci lu bari même boo fekkee gisatoo sa yaay wala gisatoo sa papa. boo leen toogee xalaat di nga xam fi ngay toogee wala di nga xam ni ngay taxawee mm. ñàkk yaay ak papa nekkul lu lu extraordinaire peut-être que gën a metti rek moo am gën a bees am na ñoo xam dañuy juddu mm. nekk liir seen papa bàyyi leen seen yaay bàyyi leen dem bàyyi leen fi yow bu fekkee da nga dem ñu tettale ba nga mag teg la si yoon nga xam ne boo leen gisee boo leen gisul yëpp da ngay def loo xam ne tey bu fekkoon dañoo ñëwaat duñ la sëgg di la xool di rus kon foofu da ngay sant yàlla. kon daal yàq terrain bi moom ba faaw. xanaa ma ma ma ma ma Omar une dernière question. nee na actualité <laughs> amul wax. léegi ci boppam la ne quoi. waaw mais Ngoné waaw léegi xam naa ne léegi ñu jeexal. Mhm. mais dama bëggoon rek nga tontu ci lenn mooy. Euh, gis-gis bi nga am ci liggéey parc comme ne nga yàgg nga ci depuis Dakar Actu ak yeneen. Mhm. ba tey sans limite bari na ñiy dingat liggéey bi ni ñu koy doxalee. Mhm. yow actuellement. nan nga gisee liggéey bi nii bu buñ ci doon soppi lan lañ ci war a soppi pour que mu gën a lii parce que même tey jii ñi bëgg a dénigrer média bi sax danaan réseaux sociaux yi alors que li am ci réseaux sociaux yi moo am fépp. man def naa rajo. Mhm. def naa télé maa ngi ci réseau xam naa li xew. nan lay def di ko yow boo doon joxee conseil comme am nga expérience. xam nga li ne ci ci média bi mënuñu ko soppi man je trouve que assainir la presse ak defar carte de presse nationale ak mënu ko soppi parce que da ngay gis site internet boo xam déjà. Euh, koo xam ne warul wax moom la ñuy jox caméra jox ko micro ne ko demal ci terrain bi kooku lu mu wax ci ci lënc ci yaa ko tooñ internet deful dara de nit yi ñoo am seen jikko am façon boo xam ne noonu la ñuy liggéeyee du li nekk ci presse moo nekk ci ci ci ci médecin yi moo nekk ci mécanicien yi moo nekk fépp ça dépend de la personne ak kooku nan lay liggéeyee am na ñoo xam ne seen liggéey dañ ciy def seen àqulaay taal duñ ci tooñ kenn duñ ci ameel àq kenn am ci ñoo xam ne ci liggéey bi ñu yor rek ci média bi mu ci la ñuy yàq nit ci la ñuy xeex xeexu jàmbur ci la ñuy dénigrer nit. kooku mënoo ko changer mënoo andi lenn yow yaay xool li nga xam ne war nga ko def rek nga def ko. <laughs> ah waaw léegi nag man su ma toogee fii xam nga xam nga dañ ko wax <laughs> ne ay lu am moo fay njëkk ku ko sañoon am ko <laughs> ku sañoon lu xew yaa koy njëkk mm, du la ko wax saa njóogu ma informé loolu kay du lay ah. gërëm waa ah, di gërëm saa njóog di gërëm bëtti ak ma jigéen plaisir la ak euh, ma partagé ak yenn wax dëgg yàlla plateau bi saa njóog moom dama koy gërëm bu baax ndaxte xam lu tax mm. ah, bu mbir amee ñépp di wax yow nga toog défendre nit ki ak situation fu mu tolloon c'était pas permis à n'importe qui parce que ku ci nekk am nga loo xam ne yaa ngi koy wax te bu ñu jàkkaarloowee da ngay sëgg donc maa ngi koy gërëm bu baax ci kii bi di ko wax nag kër gi moom sama kër la kontaan naa bu bokk ak yéen plateau bi di di gërëm bu baax Assane merci beaucoup reporter sans frontières merci beaucoup <laughs> loolu laa bëgg doon <laughs> jaajëfal bu baax a baax merci sa bi dee sooy bu xam naa ne ku la la moom tamit kon di la ñaanal rek yàlla na suñu borom sàmm aar la bu baax baax amal ay milliards ba mu neex la. jërëjëf waaw milliards yi nit ñee ko moom. dama dégg la neex ok pour xaj yeeg béy ji pour ñun la nit la waaw. ayca ñu ngi lay euh, remercier je rappelle que ni Ngoné Saliou journaliste nekk foofu la ci sans limite moom la ñu dalaloon doon euh, waxtaan ak moom tuuti 30 minutes ndaw na mais nag dina dellu si waat allah allahu rabbi ayca ñu dem euh, jëli actualité du jour. mi ngi noonu sooy wu Diop Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Adja di la ñaanal yàlla jàmm. <laughs> amin ñu bokk ko waaw di wax fi nga génnati tabarkaala tabarkaala. jërëjëf macha allah. jërëjëf ah. ñaanal la yàlla jàmm ah, am nga yem foofu. li nga dégg li nga ci yokk nii pour lan la. yéen di ngeen a dégg lu ma wax lu ñaaw gis naa dama gis dégguma nuyu ma te joxe carte voilà maa ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla jàmm di am mbégte tabarkaale di wax ne ki kub sa baat bi téer bu mën a kub la nag xam nga man téer la baat ba toll waaw voilà baat bi macha allah caama la nuyu madame Dieng di ko ñaanal yàlla jàmm xaritu Serigne Sidi baa ngi ni moom Serigne Abdoul Ahad Mbacke ñaanal Serigne Sidi mu yàgg fi lool te ànd ak wér Mbacke ndax njariñam bari na ci réew mi waaw njariñam euh, dafa am lu rëy lu ma jàngee ci moom màggalu Serigne Abdoul Ahad màggal Touba mhm. dañoo yor suñ caméra dugg fa mhm. bëgg mu wax sëñ xaadim ni eh, eh, sëñ siidi nee na genn kàddu moo am tuuba mhm. sëñ Muntaxa ko yor loolu am kilifa te fi mu toll ci àddina mhm. loolu am njàngale la kilifa rek waa Omar bun Xataab mhm. Gueye futur maire de Kër Massar ñu ngi koy nuyu ci kanam tuuti ñu ñëw ti victime di net dugg tuuba googu fekk fa loo xam ne sëñ Muntaxa moom lay aaye am ku fa nekk di ko def ñu wax ko mu teg ay lay tey nag ñëw na ba ci plateau bi dinañ teg vidéo yi laaj ko fan la ko defee ci kanam tuuti ñu koy woowee lëx ñu ngi ñëw ah moom la wax mën naa am mën naa am am na lu ma toogaale te xamu ko de <laughs> ci kanam <laughs> waaw ayca may jigéen jëpp nga ne loo indite waa ajaratu comme ni ma la ko waxee sànq rek euh, nag euh, renvoi du délibéré bi nga xamante ne ni euh, moom la cour de justice bu CEDEAO mhm. amal ci daanaka loolu ñuy lijjanti ci mbirum Ousmane Sonko ñu seetlu ne nag ay avocat ku ci mel ni Juan Branco ak maître Ciré Clédor Ly moom la ñu gënoon ràññee ci boobule. visioconférence yu ñu doon amal euh, procureur bi nag am na lu mu yëkkati ci ay kàddu wax ko euh, ci li tax ñu daal di euh, renvoyer mbir mi ba le 6 novembre incha allah motif bi ñu joxe nag mooy que ne. Euh, document yi nga xamante ne nii am na benn euh, portugais boo xamante ne nii dañu euh, traduire mbir yi mënuñu traduire guñu ko ba léegi nii moom it mënagul liir affaire yi looloo tax ñu ne dañuy yóbbu mbir mi ba le 6 incha allahu rabbi ñu daal di dem xooli li mu wax ñu del si si plateau bi. La Cour entendu les deux parties. la Cour fait observer que effectivement il le débat entre les partis, mais il y a aussi le fait que euh, le panel est composé de différentes langues. Il y avait la langue anglaise, le français et le portugais. Et spécialement, et ils ont reçu les documents ce matin, le documents qui ont été produits par les requérants. Et ce pas des petits documents. Et ces n'ont pas encore été traduits en portugais pour le juge portugais qui est dans le panel. Alors, vous savez, la transparence de la justice et puis sa, sincérité suppose que le juge sache de quoi il parle et comprenne ce qu'il lit. Euh, la Cour, euh, et à toutes raisons, la Cour va également vérifier euh, certaines... Donc, il y a un, jugement avant du droit qui sera rendu. Et c'est notamment sur euh, la Constitution, M. Branco, la Cour va examiner les pièces la conduite de sa constitution, pour voir la régularité de sa constitution. Pour ces raisons, la Cour euh, met l'affaire en délibéré euh, au euh, novembre pour rendre ce jugement avant de droit. novembre. pour euh, le jugement avant le droit. Oui. Votre avocat. Avec votre ultime permission, Monsieur le Président, nous souhaitons simplement porter, à l'attention de l'Auguste le fait qu'en ce qui concerne notre euh, Maître Larifou, nous ne, nous ne sommes pas au courant qu'il y ait une, euh, convention de coopération entre, entre nos deux pays, entre le Sénégal et les Comores ou Djibouti. d'accord. Donc, euh, les, deux, vous maintenez les deux. Donc, la Cour va examiner tout ça. Donc, il euh, n'y a ay Aïcha mi ngi noonu jërëjëf Modou Diouf ak Abdou Top ajaratu euh, dégg nga li ñu yëkkati ci euh, mbir yi ne dañu koy délibéré le c le 6 novembre bi ñu jëm Omar mu mel ni nag euh, agent judiciaire de l'état bi sa doon na wax ni démb dañuy am nañu renvoyé mbir yi parce que dañu am problème mu électricité ak internet est-ce que tamit loolu du nekk loo xamante ne ni mën nañ nekk lu yablu Sénégal ak fi ñu toll. ne euh, xam ne des fois nag li wolof naan wàcc daanoo ci gën a gaaw. Mm-hmm. des fois am na défaite yoo xam ne nit ki da koy nangu sax te atteeguñu. Mm. parce que nag fi mu jafandu daa woyof loolu yow da ngaa am problème internet yow démb ak tey yow laa am nga. déedéet problème courant da nga am. tey ji bu demee ba agent judiciaire de l' état taxaw wax problème internet problème courant pour mën mën na indi leneen. boo xoolee même Amadou Ba mi jàpp am na ñu spéculer ñu ne xam moo waroon représenter Ousmane Sonko physiquement mhm. Amadou Ba ñu bàyyi ba loolu ñu indi ay mbir yoo xam ne kenn xamul mu toll dafa mel na nguur gi li mu jëm dafa mel na dafa xam ni day perte parce que moo tax mi laaj ay renvoi nan puus mbir mi nan ko puus lamb joo xam ne dimanche la nan ko war a sëg bëre bu ñu ba egg ci samedi benn mbër mi naan nan ko puus mbër moomu dafa jekkul loolu dama ni wàcc daanoo ci gën a gaaw bu leen leeree ni mënuñu am ndam ci Ousmane Sonko nan ko nangul li ko juge bi ji nga sor jox mais yii ñuy def yëpp pour man jaratu ko pour man problème bi état bi am mooy dafa téyetul ci lu dëgër ci mbiru Ousmane Sonko moo tax mu ragal. léegi nag comme juge bi nee na le 6 incha allah dinañ ko àtte bu le 6 jotee incha allah ñu xool rek fan la wànnenti di mujjee ki gétam waaye nag wàcc moom daanoo ci gën a gaaw. d'accord jërëjëf euh, Soyibou euh, dégg nga mbir yi ni mu demee euh, ak ñàkk tradiction bi nga xamante ni nii documents yi traduire nañ ko ci langue yëpp. moo waral ñu ne nañuy bàyyi ba le 6 incha allah. dafa am euh, benn borom xam-xam bu mag bu Assane di faral di invité ci seen xalaat. mu hmm. euh, ngi tudd ci Cissé Tourwaag may rëcc dafa am kàddu bu mu waxoon. Hmm. dama koy gis toujours ci diggante état bi ak euh, opposition bi rawatina Ousmane Sonko. nee na mi ngi mel ni daal mm, roi des arènes bu taxaw. Hmm. di wut ku mu bëreel. adversaire mooy Ousmane Sonko combat bi nar a ñëw roi bi buggul bëre mu dem di wuti ji médical maanaam certificat médical loolu laa gis ci mbir yi muy renvoyé ak amuma connexion awma courant yëpp ay lay la ma jigéen état du ma wax man sooy bu aw ma dama am problème connexion ma di ko gëm du ma wax ni ma dama am problème courant man sooy bu ma di ko gëm mm-hmm. parce que ci sama ñaq lañ koy fay ci courant ak lépp te musul am problème boobu kon daal li ma gëm mooy CEDEAO ñi ngi bàyyi mbiri seen loxo ba le ñu bëri am nañu yaakaar dindi ko ci liste électorale bi tëj ko kaso ba pare dem tëdd nelaw yaakaar nañu daal bu CEDEAO ñëwee dina tranché mbir jaarale ko ci yoon ndax bu ko tranché ba pare nag ñun dañuy ñëw jaara euh, dégg ndigal loolu loolu nag moo jar a laaj. yaakaar nañu dinañ tranché ñoom lu jub. Mm, mm. ajaratu nan nga gisee mbir yi ni mu tëddee. waaw am na ñu ma dégg ñu naan patate chaude la pour CEDEAO Euh, parce que aussi du loo xamante ni euh, dinañ ci sooraale ñoom lu bari. Mm. mais euh, dama dégg sama benn waay dañ doon waxtaan sànq mu ne ma ku bëgg xam mbir mi da ngay dem liir histoire fils fils di front islamique du salut mm. mu ne boo ko boo ko liiree rek di nga comprendre lu bari ci dossier Ousmane Sonko mm. man daal li ma ci bëgg wax mooy li yàggatul nañ déglu rek li yàggatul mais bu fekkee ni trois requêtes yi nga xamante ni wax dëgg yàlla sabasi lu tudd bu Euh, juge Casamance donc nañ ko nañ ko delloo rek rétablir euh, euh, suspendre dissolution wu mm-hmm. parti mag yooyu ñetti requête la jafewul mm-hmm. man daal ma sañoon daal ñu ñu ñu delloo ko yooyu yëpp daal balaa d'accord incha allah alaaji est-ce que nekkul tamit li tax état bi di bëgg traîner mbir yi waaw mooy na ma déglu sax li tax mu bëgg a traîner mbir yi mooy que ni cour suprême dafa war a àddu ci ci ci ci ci ah ok d'accord. xam nga commencé ngeen. ah sooy eh, bu kii sooy bu mu eggali waaye. <laughs> alaaji xam nga li nga ciy wax waxal. dama ne la est-ce que nekkul li tax ñoom ñu bëgg a traîner affaire yi nii pour mu yéex ñuy pousse ko poussaat di xaaraale cour suprême li muy génnee la moo tax. waa dafa mel ni sànq gis naa ci sene rek ñu wax ni xaw ma dafa am. dañu annoncé waaw benn cap de bus kañ la tàkk. ah parce que dafa mel ni wax nañu côté Dakar ak euh, centre bi <laughs> ah, lañ wax. centre ville la centre ville lañ wax mais ak. port côté port yooyu dañuy am Sénélec annonce une coupure. waaw euh, d'électricité ah. en centre ville. waaw ah, coupure d'électricité boobu xam naa ne mook lay bi kii nag waaw mais xam naa coupure d'électricité bi bon wax nañ ko daal. loolu nekk xam nga. Euh, mbir mi nga xamante ne bi moom la ñuy wax ni mu jëm ci wàllu CEDEAO xam nga état bi moom euh, mën na lu ne. Hmm. waaw mën nañ leen a àtte teg leen daan ñu bañ a jëf. defoon nañ ko xalifa sàll ak. def nañ ko xalifa ak Karim. donc CEDEAO man la fay jóge même bu fa jógee ñoom mën nañ wax ni paa bi lëndëm na parce que fii la juge saba si fay àtte ñu taxaw ne doo ñoo bañ. mais après nag. waaw mais quand même. xam nga tey bu fekkente ni bii tey yaakaar gi ci nit ñi war a am ci àtte ba tey jii xam nga Karim Wade ngi nii fu ne gañe na leen fa procès saa ñu génnee réew mi Karim gañe leen mais ban procès ci mës a dox donc état bi tamit ñoom dañuy doxe maanaam àtteel ñu ne waaw CEDEAO bu dee lu leen arrangé na ñaan moom CEDEAO ko wax moom il faut doxal mbir yi il faut respecter. kan moo wax loolu lii lañ doon wax barki dem il faut respecter les institutions kërëb kërëb loolu dafa war a kii tey jii juge àtte ñu football ko fële ba noppi di wuti ci waat beneen juge quand même nañu kii nag bu fekkente ni bi tey seen euh, ngeen ñoom ñu respecté li nga xamante ni bi mooy yoon xam nga tey jii mbirum Ousmane ko même bu ñu demee ba accepté yoon hmm. accepté wuñ quoi hmm. parce que ba ñu waroon a jot na te accepté wuñ quoi. temps yi moo ñu loolu mooy li nga xamante ni bii. voilà mooy li ci ëpp solo ko mm, macha allah <laughs> <laughs> ajaratu mi ah, ngi noonu man nag. échauffement li ma waroon wax ñëwagul. d' accord ajaratu baare ngeen ma. voilà mi ngi noonu. na ñu xaar rek après ñu kii mi ngi noonu ajaratu man nag li ma ci euh, euh, dolli rek. yow da ngay dolli toq rek. mënu ma comprendre mënu nga ni yow da bëgg euh, étudiants yi. dem seen kër yi toog jàngee ci internet tey ñu taxaw euh, di wax ne euh, problème mu internet la ñu am ak coupure de euh, électricité xam nga loolu yenuwul maanaa ajaratu dañu waxante dëgg loolu eh laa mi ngi noonu direct te nga ne nga ne étudiants yi nañ toog seen kër dem jàngi ak internet ama loolu loolu nañu lijjanti mbir yi waaye mi ngi noonu ajaratu ñu leen di jox dig daje suba jàmm ci beneen ci incha allah incha allah merci beaucoup ma jigéen Diop Dieng Sall ay ca ñu ànd ak partenaires yi dellu siwaat fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm gis bu gaaw te wóor kappil waaw waaw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 seen boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak bu Jóob ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbb ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. remercier waa Régie remercier également suñuy partenaire kenn ki di nag Kappé Kappé di kalpe bi nu moomal suñu bopp bi nga xamante ni nag moom la doomu Sénégal teg ñu leen di ñaan rek ngeen def ko seen yëfi bopp bu nu ca noppee solution it noonu la ay doomi Sénégal la ko teg garab bu ngeen bëgg mu ngi fi waaye tamit mi ngi jàkkaarloo groupe Walfadjri loo laaj rek dinañ la fajal sa ajo ay ca ñu jaajëfal leen bu baax a baax son yi bu euh, ñu nuyu sa invité doog a jëli victime du ay ca lëx maa ngi lay nuyu di la dalal maa ngi siyaare bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di sàkk seen ñaan di leen ñaanal gudd fan di siyaare Sénégal yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw. amiin yaa di ñaan réew mi jàmm tey ñaanal suñu bopp jàmm. d'accord yàlla nañu ko bokk. ayca ñu jëli victime du nepp son yi bu ànd ak ganam. son yi ma bàyyi la ak sa gan. jërëjëf Adja. Mhm. Euh, ñu dalal tey lëx lëx nekk Touba. Mhm. Euh, di yëngu ci TikTok bi ñu xam ko ci. Mhm. moom nag lu ne lay jaay ay ferak ay euh, euh, kii lii ëmb ween nu mu tudd. liggéey la soutien ngor soutien yu bari lay jaay. ci lu nekk lay yëngu macha allah moom la moom tey moom lañu invité. Hmm. ginnaaw bi ñu ko nuyoo li tax ñu invité ko fi nag moom lañuy teg ba pare muy dafa am benn vidéo bu fiite woon wala bu génn. Hmm. ñu ni ko lëx yawa mu ni du moom. Ah. ñu ne ko yawa mu ni du moom émission bi deux parties lay doon bu ñu paree. Hmm. ñu doog a ñëw ci sëñ Muntaxa la muy aaye ca dëkk ba te moom mu nekk ca guddeeg bëccëg. ñu ne ko lëx foo koy defee mu ne am na fu ma koy defee loolu lépp mooy deuxième partie première partie bi mooy euh, première vidéo bi ñuy seetaan après dellu si waat lii mooy première partie bi lëx kii la ñu wax dee taxawal yow kii dañ cee def bind sa tournée yow la tax ci say foto noonu la ah noon la a ah, ca léegi leeral ko may kii du man man xam nga ne ñàkk ma fee de di sol mbaqapib gii ah, ah? lii xama xuuxal jéeg la xama mbaqapib ngay wëngalu lii dinaa ko def man heure bu may fecc sax daanaka damay sol yére ah. sa kanam laay wane man mosuma gis ma wane ginnaaw waaw mais mais kii yow ban ban ban ban gi nga mën a wax ni kii du yow te yére nuroo mbagg yi boo ko xoolee Modou illustré ñu. kii maa ko ëpp kan kii maa ko gën a ponkal maa gën a doon dëx kii maa ko ëpp wutaat boole ci. waaw yaa gën a maa ko ëpp lépp ah, kii maa ko gën a ngande maa bu leen ma ko jiñ ah. ponkal mu ngeen gis muy fecc rek ngeen ne lëxam <laughs> réew mi Sénégal benn ponk la fi ne muy man non non mais xoolal kii xoolal mbagg yi xoolal wallaahi du man barke alxuraan du man ah du man kat ah d'accord ah. kan moo def moo ko xaw ma ku ko def damaa jékki-jékki doog ñu mbaq ma ko après itam nga mbaq ko bàyyi seen mbaq ma ko waaw ne ma lëx kii yow la man la du man d'accord waaye man xam nga ni nekkuma fii di wëngalu di feccee nii man benn fecc laa am damay yuur mel ni Gris boobu laa man d'accord buñ ne woon aaya bi ma noppee fecc ndax boobu rek laa man boobu rek nga man boobu doog laa euh, bu dee amul leen li nga ci wax ñu dem ci deuxième partie ça nee na du moom waaw xam nga mais le fait ko moom ñu tuumaal ko ko rek euh, mooy kon ñooñu moom dañoo gis ni lëx day fecc mais lëx ba gis gis naa la ngay teg tamit ay Omar Pène Eh, di fecc. waaw boobu nañ ci ñëw sax. waaw ah, am na yeneen fecc yoo xamante man moom damay fecc wax dëgg yàlla damay fecc. sama tàkki moom dafa oyof. waaw moom boo nee taat bala nga naan rëccit ma ñëw teg. Ah, fecc eh, waaye du wane ne daal du moom. waaye du moom kii nuruwu la ko bi nga gisee eh, jëmmam ji ak kii. non non non kii moom. mais tur kii tur mais ndox tur woon ni 2019 mel ne kee sut. Omar Omar man 2019 ak yow. 2019 tolluñu woon nii ñun ñëpp kenn tul 2020 2020. waaw moo tax ma ne yow boo nee du man mën naa sukkandiku ne at bi boo nee ëpp rek. mën naa ne atu ren bii ak daaw jéeg tolloo woon nii. man naka jëkk nii laa tolloo. ba nga juddoo ba léegi. déedéet juddu tool nii noo ko gisee. juddu kon léegi moo tax ma ni léegi 2018 2016. waaw nii nga tolloo. nii laa toll man li may màgg bëriwul. léegi mag bëri. waaw ma li may mag bëri mais mais 2018 2019 fekkul ngay def TikTok. boobu déedéet man 2022 yaakaar naa ci laa ko tàmbalee. waaw ah, mooy wane ni kon loolu rek weddi na ko moom. non man moom bu ma koy jàngat du moom parce que la déjà. épo ah, mercenaires yu takkarnaase yii. <laughs> doyatuma parce que. <laughs> parce que man barki sëñ barki sëñ Seydou Mbacke du man. ah kon du ah, moom xoolal ah, déjà euh, nduroowuñu sax forme. mbagg yi moo gën a large et puis li mu wax sànq ay fesam moo gën a yaatu. vraiment kii du man noonu bu doon yàq la rek te feer yàlla andu ci. yàlla njëkk a bañ. d'accord yàlla bañ yàlla bañ na. baax na jërëjëf. kon béti lii mooy première partie bi ñu doon leeral kon nee na du moom. yéen ñëpp da xam ne du moom. léegi nag ni gars yi jublu ci utiliser sa image pour lii la la ci jublu. kooku ay wii la bëgg rek. ay wii doonga la ñu ne lëx ñu ngi koy siifut nañ def nii bu ko defee jéem ko yàq rek waaye man wóor na hmm. moo tax ma si sonn. man moom damay fecc saabtaan ko oyof moom mosuma ko sol. waaw ah, man li may gis nga sol mooy lan lii nit dina ko sol sax. Ah. d' accord moom sax xam na ne jaarul parce que gannaaw la wane. kii est-ce que sénégalais la ah déggoo son bi muy fecc. moom Sénégal dañuy déglu son yi <laughs> Sénégal yi ñag a génne réew mi. <laughs> waaw son bi génn frontière kii jéggi frontière néew Sénégal. mais mën nañ ko ko ci tegal hmm. kon ñu dem ci deuxième partie wu li ñuy waxtaane bala ñoo dugg nag ci biir dëkk ba di Touba ak la fay xew ak fecc mi ñu gis ci sab compte dañuy dem mos as lëf ci sa ay vidéo am na lu ñu ci topp dajaleel ñu xool présenté ñi ñuy seetaan ci télé beeg internet bi kan mooy lëx après ñu ñëw waxtaane ko foo koy defee Modou Diouf kac jaay ni kac kac jaay ni kac kac kac kac kac kac kac kac ñu bëgg nga xam ne ni sëy ñi nangoo sëy ñi nangoo sëy ay kac kac jaay ni arbitre jaa ngi lëx lëxi leen ko mu ni arbitre baa bu werte bi am na ak biir bu wën ci bëgg am na arbitre yaa ngi nii kac kac ci def saar la ñëpp am naa nijaay pare naa yokk jom yaa ko tere neex bul lu xale tëdd am naa ko nee naa ngelañ bu leen am naa ko kat kat jaa ngi nii naan ñaq yaa ngi nii naan ñaq tey fii laa génn si waat waaye naan ñaq yaa ngi nii ñaar ba ñoom a daal ngi daal sama sëriñ jërëjëf mi ngi noonu kon lépp <laughs> lii moo ñuy may ñu dugg ci li xew nag Touba sëñ Mountakha dafa am yu bëri yum aaye gën a yeesal li sëñ Abdoul Ahad Mbacke aaye woon ay jamono. yow ñu gis la nga nekkub taalibe ne ca dëkk ba. Mhm. kilifa gu mag di sa sëriñ muy sëriñ Moussa Nawel. Mhm. léegi nag vidéo yëpp ñu gis ko sab compte nga mbax ko fa di fa fecc léegi lan moo tax da déggul ndigalu sëñ Mountakha wala fan nga teg ñuy aaye fecc. ca dëkk ba wóor na yaa ah, koy leeral damay yaay leeral yi vidéo yi fan la ak lu tax ñuy aayam pecc ca dëkk ba ngay fecc waaye man bu may fecc damay déplacé damay jël àllu Dakar ñëw ba Touba mbax ko ca fecc la may fecc ñëw ba fan bu mu ñëwee ba Dakar gi laa fecc sama fecc mbax ko kon vidéo yi benn du ci Touba amul bu ci nekk Touba ah, su may fecc ji dama naan maa ngi nii di fecc ji su ma ñëwee fecc dugal ko sama compte di dugal leen daal la xam ne dinaa ko defee Touba mooy dugal su ma koy dugal moom fa laa koy dugalee Touba mm. waaw waaye fii laa koy feccee Dakar def ko sama compte su ma koy dugal fa laa koy dugalee mm. te li ëpp sax bu may dem Mbàkke laa koy dugal ci yoon bi wala bu ma eggee Mbàkke fi nga ne fa lay liggéey ma mbàkk ko foofu d'accord waaw d'accord léegi ci loolu sax moo di vidéo bi nga njëkk a lancé dafa mel ni ci la bëgg a dóoree Baye Fall yi ak ñiy seetaan wane ni moom mi fecceewul fii ñu xool vidéo boobu dellu si waat salaamaaleykum na ngeen def baa ngi si jàmm dama leen xamal ne nag maa a dem fecc ji def vidéo yi nga xam defoon naa sama kon mbaq ko ci fecc mi dafa jeex instant bi maa ngi nii Mbàkke gis nga fii ma ne Mbàkke la soo jéggee fële yaa ngi yaa ngi yaa ngi Touba man ci frontière bi laa ne gis nga deux fois yaa ngi nii Touba Mbàkke instant maa ngi Mbàkke fecc bari nag fii laa ko doon feccee instant bi nag maa ngi jëm fi nga xam ne ne mooy Dakaaru njay sol sama yére yor sama wëys war dem sàngu sa ci euh, fet ji maa ngi dox jéggi frontière frontière nga ne rek. voilà mi ngi noonu video bi daf mel ni moom nga sëlëmee Baye faal yi ba loolu sax moo lay may nga mën a dugg ci problème bi nga amoon fan yee ba def nga ci ab vidéo leeral di wane ni dafa am Baye Fall bu la fekk nga taxaw wala ay nit yu la fekk nga taxaw ba ñu jël sa cap bi nga soloon léegi. ndax vidéo bi ngay dëggalee Baye Fall que ni fecceewu ma Touba Dakar laay feccee ak it nga ñëwaale sa problème boobu nga fa amoon fan yi maa bi may dëggalee ne man fecceewu li nga xam ne mooy Touba mooy ci màggal gi ma bàyyi sa Assane Mesere di ma laaj waaw boobu mi ma koy laajee te lu bees mu laaj ma foo feccee man ko Touba laay feccee Touba de astafurla damaa jum de Dakar Dakar Dakar Dakar Dakar Dakar Dakar dëgg leen loolu Dakar Dakar Dakar ma ne ko Dakar laay feccee bàyyi seen Mesere ma xooloo ne ko man léegi bi ma ko waxee loolu bii tamit dama leen di wan ne la la ma feccoon jeex na maay fecc ci ah yow kon boo ñëwee Dakar da ngay tourné yu bari def ko en boîte euh, damay fecc loolu moo indi kenn ku ne la la ñor de adduna loolu euh, la parcelle faja sama benn kër xarit bàyyi góor géey kon da ngay da ngay tourné yu bari damay def yu bari après ngay publier heure su ma bëggee dugal dugal hmm. ana boo xam ne léegi fii laa ko feccee waaw gis naa solution waaw gis naa Assane Mesere di la fii laa ko feccee ok kon yow fecce lay indi Dakar. moom fi indi di adduna kenn ku nekk la la ñor mais teewul di man wax dëgg yàlla fecc da mu fi indi amul leneen. wala comme sëñ bi dem na ba aaya ko kon bëggu ko lu tax bàyyi fecc mi. ah nit da nga dégg diw de baax na waaye waaye foo ko dégg cat la man loolooy sama cat. <laughs> d' accord léegi lan moo la jotalee woon ak Baye Fall yi bi nga bi nga bi nga demee ba jéggi tali xaw ma après nga ñëw ci histoire boobu. boobu dama doon ñëw Dakar gii doon fecc si. Hmm. yor sama saak taxaw ci euh, station bi. bi ma fi taxawee noonu am waa ji ma wone ma éelëx eh, ma ne ko ah, ma kaay ma ñëw man bi may ñëw di wuy sax xalaatu ay kabak yooyu la may doyee te man fi ma taxaw nii wet gii nii ki ma gën a jege Touba moo yorob sigaraatam di pëyi pëyi moo la gën a jege Touba moom mi ngi nii taxawee nii man maa ngi taxawee fii te moo moo ngay tux léegi waa ji ne ma lëx kaay ma ñëw bi ma ñëw man jëpp moo ne sax damay wax ay kabak yooyu mun ma indi kab mhm. ma jël jox ma xool gis waa ji takkub ma ne ko yow lu tax nga jël sama kap te kii takk kap mhm. mun ma kabu service la léegi après Al Dakar bi nga xam ne ci laa dugg ma dugg ci Al Dakar bi dem ba sori dawul toll ak 300 mètres ci li ma yaakaar 300 mètres daal di ñëw ne ko léegi may ma wàcc ndax man waa ji bii jël sama kap wunu ma carte boo xam ne carte Baye Fall laaj ba xam moom Baye Fall la wala du Baye Fall mm-hmm. léegi ma ñëw fekk ma ne ku baax yow da ngaa jël sama kap te léegi man wóorum ba xam Baye Fall nga ab du Baye Fall mm-hmm. ci la wax benn xarit bi ne ko demal ci oto ba nga indi ma carte mm-hmm. kooku daa dem indi ab carte mu wan ma ko ne léegi li man am mooy kap nga ma jàppee kii taxaw doon waxtaan rek kap la sol ko mu gëmal ma nag kabu service la mhm. léegi nag man ma def vidéo laaj ndax suñ Muntaxa bi muy def loolu bi mu leen koy tegal tere da waxoon ne leen bu dee kabu service ba leen ko bu dee kabu service jàpp leen ko mhm. may laaj loolu ab laaj la rek ma di ko laaj ñaara bi cool yu bari am koo xam dafa ñëw di seetaan si mhm. léegi bi mu ñëw seetaan takk ak ceen waaj ne ko tekkal ceen gi waaj tekk ceen gi par dik ko jox mën ko dugal ko sa poof ma laaj ko lu tax nga def lii mu ne day dawal compréhension ma ne déet kat moom yow bi nga ko teggee dala ko doon jox comme ni nga joxee kii ab ceenam voilà man ni war a def comme yàlla dogal ne nag moom si jëmmam bi mu tekkilee kee ceenam da ko joxaat damaa waroon jox sama kab d'accord mais joxuma kab ba léegi bi ma joxut kab ba après ma woo benn sëriñ ku ñaan sëñ Basiru Fall mhm. léegi bi ma ko wooyee wax ak moom mu ne ma ma fekk ko këram ma dem ci arrêt ba taxa lu yàgg jot ba woo ko jotuma ma ñëw ci arrêt ma ñëw ci garage toog fa ci la am ku mu yebal mu ñëw fekk ma ci la dagg kab ba ma ne ko man wéet ba ñu ma ko dagg kab bi mhm. même fii bu doon Touba bu du Touba yëpp ñu dagg ko garaaw mhm. waaye li may bañ mooy ñu aaye ma dara ba pare te lañ may aaye ki taxaw di waxtaan moo ko sol. mais loolu kabu service la euh, kii. waaye kabu service mooy lan. donc fu ñuy tere kab kabu service. loolu lépp kab daal kab la rek. service la. kap kap lañu tere nee service bee ko joxe. non service warta am kabu service moo warta am maanaam bu ñu teree kap baaraamal ko. Hmm. kenn waratu la sol lu nuroog kap. mën nga sol beneen mbaxana nag mais kap moom waratoo ko sol. waaw kooku kap la sol. kuy tere kap kañ doo léegi man kap bëgg rawat am ku ñëw takku cee ñu tekk ko ne ko dugal ko sa poos. man nag ñaar yooyu noonu laa doon laaj ba xam. sëñ bi daa wax ne bu ñëwee def leen nii wala def leen nii man xawma may laaj. man loola tax ma def vidéo. mais bi ñu la laajee moom ci man damaa reetaan jox ko kap ba. ndax dama ne ko fii ci Touba la bokk wala man ci Mbàkke mu ne ma ci Mbàkke la mhm. ko waaye fee ne gis naa fa ñuy ma daan koy làq ko kon baax na jël kap ba jox bi ma jëlee oto dem sama xel may ma ne ma kii jël sa kap est ce que ci Baye Fall la bokk ndax wun la carte bu war ne ci Baye Fall. d'accord ma ma retourné waat ñëw. ne ko léegi comme danga maa jàpp ana li waral ne liy signifié ne yow man yow Baye Fall la. Mhm. ci la wax benn waay ne ko dama ci oto ba nga indi ma sa carte kooku mu wan ma ko. Mhm. léegi ma ne ko yow yaa ma jàppee kap léegi te yow ki ngay waxal ni kap la sol. Mhm. mu ne ma kap bu service la. d'accord loola ma jaaxal. d'accord nga baal ma bala ñoo ñëw tuuti ci plateau bi ma danga nga taxaw publiquement ni sa baay la. bu ko sàllalu nag. Hmm? bul di sàllalu non man du sama baay moo tax. de da nga naan Baye Antoine rek Baye Antoine ji moom moo wër Sénégal gépp mais Sénégal gépp looloo fi wër da nga naan Baye rek bul ne Antoine di ko sàllalu. kon ministre de l'intérieur kon boobu ba woon. ba woon ba woon. waaw da nga naan ministre ministre de ba woon doon sa baay. doon sa baay. voilà ministre de l'intérieur ba woon doon sa baay. yow lu la ko bàyyeelee ndax da ngeen a bokk ci wàllum deret ndax li ñu la doon jiiñ ne daf laa yëkkati alal bari jox la ko moo taxoon nga ni ko sa baay la ak it lan moo tax nga gëj koo gis. maanaam ba mu wàccee ba léegi kenn lijjanteetu. déedéet maanaam bul wax loolu maanaam jëm bi Baye Antoine. man bi mu koy bëgg xam. xawuma ko woon ngir dinaa ko gis yaakaaru woon tamit dinaa gis Baye Antoine man dama koo xamoon ngir dafa am koo xam dañoo amoon problème man ak moom. Hmm. mu yóbboon ma pelente ma ba ma porté pelente ma tiit su guddi ga ma war a wuy ji nelawu ma ko. Hmm. ngir tiit. léegi man rag xam naa ne ragal naa jeel. man moom damaa ragal. jeel ma xam ko. Hmm. léegi ma dégg ñu ne moom mooy ministère de l'intérieur moo jiite police ak centre ak juuti ak juuti waaw léegi nag ma ne comme moo jiite yooyu naa fexee def nu ma xamante ak moom bu ëllëgee buñ ne lëxkat def na dara mënul ma caa dimbali mhm. te biñ toogee bi ma laajee lu tax nga nga bëggoon maa xam ma ne ko lii moo tax bëgg laa xam mu protégé waaw man damaa bëggoon ba ma defee toox doon donc mu dimbale ma ma génn ah, ah moom loolu da ko fee bàyyi moom yoon maanaam comme bu ma tooñee mu dimbale ma nu ma mën a boo tooñee waaw ma tooñee man hmm. naa ko bañ a tooñ hmm. waaye li ma bëgg mooy koo xam ne dana ma mën a dimbale comme saa njóogu mii mën naa doon saa njóogu nga xam ne nii ñu ne ah, lëxkat euh, daa juum nañ ko jéggal ñaanam ma njekk ñu baal ma d'accord nga dem xaritoog moom waaw man loolu ma taxoon a dem ci moom d'accord dégg naa nga dem fa mu may Ah, may na ma de la moom may nag mënu ma ko xam ma sàmba ak ma dem waaye may na ma te ku fa dem euh, seeti ko jox na la teraanga hmm. waaw d'accord lam ma jox daal sama xol sedd na ci guy ne wan a gu mbott d'accord waaw ndox macha allah moom moo mag Antoine sax. déet maguma ko de non ma maguma ko wallaahi maguma ko. gis naa fi ngeen doon fulaat naan la ko mag Antoine yaa ko mag barke sëñ Bachir wala boo gisee boo xoolee dojor xam ne du gone. <laughs> du gone de wallaahi du gone jëm daa doon ci nit ñu ndaw ñi rek. nga di teg ko gone magum jëmm la. ah moo la mag waaye Antoine 1902 la judd. 1902 <laughs> la ba Antoine judd. lëx. man c'est man lëx man ay mbiru lëx daf ma jaaxal euh, kii. Hmm. lëx dama ko gis euh, ci màggal Touba gi. Hmm. lëx. Euh, gars yi nekk tuubaa ku ci dekk présenté na ah man de jox nañ ma lii defal nañ ma lii. Hmm. lëx nag moom gërëm nañ ñi ko ñi ko jox. waaye gisuñu lëx mu jënd. <coughs> kiiwu loolu après sooy mu ne ma daje naag lëx xaw ma mu jënd ñaari kilos yi. ñaari kilos orange. dama jël ñaari kilos dama jël yow dama jël tegu ko ak benn potu raisin. nit ñi man maa jël sareet mbaam teg ko ci mu yóbbu ñu dem ba ci bitik ma jëndaat fa ndox ñaata lay jënd. yaa ngi dégg te bési bési lëx boo gisee lëx. ñi bu affiché di leen gërëm. Alsaan Mbay ñu ñëw ci màggal gi di ko jox. non mais lëx waroon na lu mu gàtt gàtt. jël benn minicar yàpp ko. li nga xam ne mooy ki séddale ko waa koñ mais lëx déedéet demeewul noonu affaire daa cher ay fruit daa cher daa cher ay fruit daa daa cher ah, daa cher daa cher mënoo cee def loolu de fruit daa cher man la ma jënd bari na bay bëgg a tas mbaam laa ko teg yóbbu saa gàlle baay sooy sooy boo gi barke sëñ Saliou Mbacké alaaji eh, mën naa am bu teg ko ci mbaam ne ñaari kilo fañ daje maag moom maa ngi koy nuyu sax kaay jënd fañ daje des fois man ma jënd ba pare ni ko maa ngi de mun ma dinaa la ko indil mën naa am lëx daa jël ci li mu jëndoon as lëf yóbbu la ci def saret bi yóbbu ko mais dama ne la man li ma gis lëx yóbbu ko mooy ñaari ñaari lan. ñaari kilo. ñaari kilo ñaari kilo a bul bul fi di ma yàq. alaaji alaaji la yàq non non. la jee xam naa saret bi yóbbu na ko. yow yaa jëloon la nga ma la nga àttan rek yóbbu. saret ba indi na la ci des loolu weddiwu ko garaawal. léegi kon ne saa bu dugg foofu nag ñëwal ci fecc mi Tuubaa non non c'est que loolu loolu dafa neex quoi damaa damaa suivre lëx. waaw xam nga moom wax dëgg fa yàlla. yéen gars yi jàpp nañ ci magal gi de. magal gi bu doon tayaat. Mm. bu ñëwoon tey la man nangu na. pare waaw <laughs> mais lëx man defoon naa ne yow. bi nga amee relation alkaati yi. Mm. Euh, mooy bi la alkaati yi ramassé. waaw boobu la waaw jour histoire boobu parce que histoire boobu nga ko nett parce que man gis naa la nga dugg ci oto L4 yi naan lëx jelmaan la maa ngi nii di dem. Ah. <laughs> waaw jëndi woon reer waaw. ñu ñëw daan ñuy arrêté. waaw ji ma ji ma taxi si taxi la jëlee. Mhm. waaye jëmmi waa ji bët yi nii ko. Mhm. ki la jël si taximaan bi bët yi daa nii ko. Ah. ki doon dawal ah. waaw. léegi nag ñuy dawal oto police nekk arrêté nit yëgunu ko te maa ngi sëgg sama téléphone waaye daa def mel ne dawal film daa jege gaar suñu kanam <laughs> jékki-jékki daal gisuñu ñu ne ko gisuñu la de mu jël waa daal dugal oto bi mais bi euh, mhm. laaj waa ji na ko yow an sa per jox ko per bi ñi ñi joxe miin xaw ma nan miin waaw mu ne ko yow waa miin xaw ma nan service de miin ñoo la jox ñoo la jox per bi <laughs> mu ne ko waaw mu ne ko ak sa bët yi mu na ko loolu léegi nag après bi ñu daan may làmb bi ñu làmbee ma digg am fu muy war a tëdd ma dégg kuy saw ma ne ko foofu lu muy def man day saw ma ne ko fu muy saw a <laughs> ko naan damaa fanaan lan ma jàpp ba euh, ma lañ ma bàyyi tamit ma déggee waaj naan ana dëkk gi ma ko maa ngi nii bi waree génn ana dëkk gi ma ko maa ngi nii loolu la ana dëx gi ana dëx gi xam nga man damay bañ dëx sax waaye bi mu ne ma ana dëx gi foofu xool naa ne maa fi ëpp te bëgg na maa génn foofu tàng na ma ne ko maa ngi nii mënu ma génn daal ma daal di génn waaye waaye nag wax dëgg mais yow yaa da nga doon dem mais léegi loolu lu ñu la ñëw waaw jàpp taxi eh, man waaw ne ko dañ laa arrêté taxawoo man sama jëmm an sa carte d'identité ma ne ko kër gi ñu ne ma da ngay dem am na waaj yoo xam luum la tudd police bi luum la tudd mm. ñu ne ko waaj ne ko lëx la mun waaye lëxi la waaye na jàll fële ñu dóor ma coro ah kooku xamoon na ma pare na nga def yaa ngi ci jàmm maa ba pare ne ma a moom kër ga ñu nuyu da bu weex bi mm. booy kaay leen ma taxaw ci moto bi muy wuy ji man ko booy police la di mu dem di wuy ma boo xañ moto ba daw ma léegi bañ àggee mu daaj koy laaj ne ko ki nga àndal mu daw kale mu laaj ko ne ko xanaa bi set day dem day dem di jëndee ñu ne ko waaw ñu ne ko waaw baax na ko ñoom ma jàpp donc ah, daw ba nga dawoon la waaw nan ma jàpp donc lañ bëggoon ah. d'accord ñu jàpp léegi uh, après bu fekkee Omar am nga looy laaj ah? booy Boy Modou Fall bu fekkee Omar oh, kii na sa loolu léegi sa xarit la de. waaw déet amul loolu dangay dóor. déet déet déet bul wax du Omar bu fekkee am nga laaj rek ma doog a ñëw ci moom. di rafet du liggéeyam rek ndax euh, xamul kay loolu dugal ci réseaux sociaux yi maanaam nit a la gis mu gis ni ku neex nga mun la demal dugg wala yow yaa jékki-jékki gis ne li ngay def mun na dox fii rek nga dugg ci. Euh, man moo xam nga dama bëgg xalis dama bëgg xalis li ma ci dugal mooy damaa gisoon benn suur biisu euh, ngóone daal di dalal Pawlish Mbaye Ouzin Keita ak 10 problème léegi ñu leen di may xaalis nag léegi ma ne bu dee ñii ñu leen may xaalis wax ci xorom dong ñi dee tax ñu am xaalis man dina am xaalis loolu ndax man looloo ma ci dugal far yàlla ko benn suur may jaay naan lëx-lëxi leen samay bagage salfaa ñi leen sama yëf seen loxo sama biir bagage mm-hmm. léegi am benn boobu tudd Omar daan ne ma waa lëx lii pourra boobu dugaloon day jàll léegi ma wax loolu mu mbaq ko ca ëllëg ma waxaat mu mbaq léegi nag ma topp ko ca di ko mbaq ba yàlla maa ci bi waaw lii moom ci dugal <coughs> léegi euh, sa digganteeg Boy Fall Modou Fall bàyyi bu ko sàll waaw man maa koy tooñ rek oustaz la jox naa ko cëram boobu waaw danga nga attaqué Pape Cheikh ci loo tegul fenn tooñu la Pape Cheikh Diallo ci émission bi amoon foofu ci koor dafa lekk sama ñaari junni déet xaaral moo gën a dëgër bopp ci àdduna moom def ñëpp maam am na ñoo xam ne nii boo waxee <laughs> dañ la jéem a neexal sax jox la waaye Pape Cheikh dipp boobu abonné naa ci moom di xaar mu delloo ma retour ngir bëgg xamante ak moom mu bañ lu ne ma bañ waa déglu rek waaw ma dem mu dindiwaat abonné ba toogaat ay weer abonné waat lijjantu Pape Cheikh Diallo moom ku dëgër bopp ngi noonu d'accord léegi yow léegi rajo bi télé bi dafa am serveur vocal boo xam ni Pape Cheikh nekkul géré wul loolu animateur la boo xam ne yow da doon woote ñàkk fa sa dix mille francs ah. après nga toog di ko joobi ci réseaux sociaux yi Oustaz Modou Fall jël xaalis jox la maanaam remplace Pape Cheikh pour arrêter wax ji ah. nga demati ba ci biir di ko attaqué waat attaqué yoo tegul fenn ah. ba kilifa gu nekk Touba woo la ni la bàyyilun mu sedd nga dëgër bopp attaqué ko dëgg la de maa def loolu de mhm. dem ba ci biir nga ni yaa amul benn ak na nga ko waxee noonu mais fanee passé ñu gis oustaz Modou Fall mhm. teg la ci wetam di la baatare xaalis ba nga ni sax ku ko waxati nangam ma nangam léegi yow lax yow léegi ñooñu lan lan mooy sa problème lan moo la léegi ba sa bëgg xaalis da laa dugal ci ngay tooñ ay nit yi dafa ñu la dara wala dëgg la de wallaay maay tooñ man bu ma topp wéeru man maa leen di tooñ bu dee bu dee euh, Sidiki Kaba moo fa nekk léegi te ah. Sidiki Kaba moom déggul wolof. man Sidiki Kaba mooy kan ki sëñ Mountakha joxoon si jaariga ne ko deel julli <laughs> am na ku ma gisoon koo xam ne ab paala bu xaw màggat taxaw xeef ni sëñ Mountakha daa mel joxoon na ko ak si jaade ak ub ah, lii ak si jaade la ko joxoon ak ub këmil ni <laughs> ko waaw <laughs> waaw ñëw ci Oustaz Modou Fall ba pare xëy na Sidiki Kaba nga daal déggul olof lu leer laa la wax nag dégg olof déggul ah, neex naa jëw ku ko bëgg wax ne ko bu dem xamante moom déggul li muy làkk léegi lan mooy sa problème ak Oustaz Modou Fall. Oustaz Modou Fall booba dañoo yore sama ñaari junni ñu yoral ma ko moom woon na ma sax fay ma ko. Hmm. waaw bi ma fayee ñaari junni yi ma jël te hmm. yàlla dogal ñu dajee kër soxna moomi kebe bañ fa dajee ma yéeg ci kaw ànd ak rok bi ñu yéegee ci kaw ma daal nuyoo ñu ne ma Modou Fall dane suuf ma wàcc di ko nuyu ma ma egg di ko nuyu moom ak Oustaz Pape Hann ñoo fa ne ma nuyu ko na ma ko nuyee comme ni ma nuyee sab sëriñ ñoo jox ko sama ñaar ko nuyu ko mu sewal hmm. ma ko léegi ma ko defal ko vidéo na ko yow ci mbooloo euh, essence gi wax ne da xam dara xamoo dara boo xamoon dara doo tëdd ci mbooloo sa moroom yëpp sol lu xo lu ay yu weex ak nga sol lu xonq ah. ma waxee loolu avant may wax la ma dëgër bopp rek ñu dajawaat beneen kër sëriñ kër sëriñ bas xaarim awa ba mu nuyu ñoom àndal nuyu ma en ko nag daat koy taf wax la ma bëgg wax waaye juboo na jàmm jël si na Casamance maa ko tooñoon maa jéggaluwaat jox na ma xaalis. kon jeex na. Ah, xaalis baa tax ñu ngi waaw ah, xaalis mu dugg ma nangu ko xaalis. dama ko bëgg de man caaxaanuma de man xanaa xamul logo bi c'est c'est xam nga c'est waroon ma dañoo jubóo doog waaye bu ñu jubóo ma teg ko de. <laughs> ayca wallaahi bu ñu ma teg ko man après léegi yow mën ngay jënd weeru dee bis une semaine bu jot nga jënd douze mille cinq cent weer yu cinquante mille boo dul am xaalis noo ci nekkee connexion waaw man damay ci wut xaalis de man moom fi nu ma ci ab xaalis laa ci wut bu ma ci noppi am xaalis bokk am nga soxna la jël bu dëgër sax aw ma woon de waaye xa dama am faro rab rek man jinax ju ma dàq ko jàpp war naa koo jàpp ki nga doon ko waaw ki nga doon baal ki nga doon baalal kooku kooku dama wër ba sonn gisuma kooku bi yëf yi jàllee maanaam fu ndaw si ndaw si ku ma dajal ne gi ndaw si doon baala gisoo ko ñu ne ma gisuma ko mu wër ba sonn gisuma ndaw si aw ma ay je kon jeexal nañu tàkk en tout cas li sababoon ñu woola fi vidéo bu ñu mhm. gisoon muy circulé ñëw nga ni yow beneen beet mboolem fecc mooy fecc ci sa compte TikTok daal ah. mhm. kon lan ngay tàggook euh, auditeur ak internaute yu solution TV xanaa di leen siyaare ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm di sàkk suñu sàkk ci yéen ñaan di mm. na nag saa njóobu mi wax dëgg yàlla lii nag xéewal la ci ñun ñu mu doon xéew ci ñun dañ leen daan seetaan di leen siifur bu demee ba yàlla dogal nag jamono di dem bañ fekkante fii bay toog ak yéen mm. dañ jàpp ne ñun li ñuy def ni yàlla dogal nag Sénégal yi bëgg nañ ko waaye xéewal la ci ndax ñu dañ daan toogaan di seetaan koor gi di seetaan saa njóobu mi bu demee ba mën a jàkkaarloo moom xéewal la te ñun bi ñu doog a tàmbal TikTok jéem nañu def nu ne mburug jéem a xam saa njóobu mi bàyyi tam météo mi joxoon na ma numéro mm-hmm. ma jéem ko pour xam ko moom dalay bëggee moom waaw muy ku baax moom itam ndax damay dégg du ma fi nekk mu may tudd ak yow ak sa ki nga xam ne mooy baasan métre ak soxna si maa ngi koy siyaar baax euh, di ko soxna biti di ko ñaanal baax di ñaan yàlla guddal fan yi di ñaanal bàyyi góor a mi nga xam ne nag fa laa jóge këram ñëw fii d'accord bàyyi xaas non bàyyiwuma xaas nga naan ma ci laa damaa pare sooy bu lu tax nga dem ci bàyyi góor dama pare xamee pare gu ma ndax bàyyi góor moom ba may xamante xaas suuf bi may dem ci xaas war a xamante xaas bàyyi góor a la àndal dem ànd ak ci suur boobu laa ànd ci laa àndal instant bi maa ngi këram laa jóge nii ñëw fii muy bàyyi góor a géey taalibe sëñ Saliou xaas nag moom wax dëgg yàlla mënutuma ko sant ndax hmm. lu waroon a sant sant naa ko pare hmm. ndax damaa jële ci lënd dugal ma ci leer tey jii fi ma egg ci fii ginnaaw yàlla xaar ma ndax bu doon ba mu mettee da maa bàyyi woon yàlla xoon ma hmm. boobaa duma ak ci fii bay toog ci plateau kon xaas am ma fayam yàlla yàlla guddali fanam te wéré di teram amin incha allah kon mi noonu Adja xam naa jombul ci yu bëree bëri ñu gën a ubbi ay bunt yu yaatu ci côté ñoom ñi nga xam ne ay influenceur la ñuy tuddee wala ko defee ñu am wàllu yaatu woo xam ne ki leen bëgg a xam ci yu bëree bëri li ginnaaw ah waaw waa mag di waaw ma maa ngi fàtte sax mag di ah mag di waroon na ñëw lundi mhm. mais dafa tombeek mu ni woon dafa préféré def tekk ba ah, coow li dal mu wax bi ma ko wooyee nag après mu ni moom moo préféré def ko mhm. ci seen youtube am li muy wax après fu muy génn mu doogee ma ni d'accord naa parce que comme dafa yor seen youtube te ñun tamit dañuy kii man ni mhm. graaw léegi nag suba mag di nee na dina ñëw bu ñëwee ñu jàkkaarloo mu toog fii toog après mu wax ak sénégalais yi mm. logo bi mu tafoon lu tax mu taf ko lan moo ko ci dugal am na lu mu expliqué mais bu ñëwee fii jombul am na question yoo xam ne alaaje ak ñoom Omar ak yow wala sukaa dinañ ko leeral d'accord incha allah rabbi lax-lax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal yàlla jàppale la ci li ngay yëngu yow ak koo ci nekkal ay ca ñu daal di nag yi li nga xamante ni moo di neppaat musical ayca mi ngi noonu Mbaye Daane moom nag day jël temps am buy toog. dañ la jox temps bu ndaw. non yow sa temps normal nga am. waaw yee bu ko waxati Mbaye Daane maa ngi lay. benn invité sax lan am tey. di la ziar jëlloo ziar Adja. na de lay fay bu neexee tamit jël ci beneen. <laughs> waaye yow di ma sacrifier moo lay neex vraiment ñun ñëpp di euh, nekk ci plateau bi nuyu naa la euh, Omar bu Naxataab Gueye son yi bu. di nuyu lëx mi mi nga kii léegi nii fee dajji na ma fa. Mm. Adja ma lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu ñëpp nag ah di nuyu euh, ñëpp. ñan ñooy sa gan wala kuy sa gan. Euh, tey Mamadou Diop bi ko wax. ah d'accord waaw ah, Mamadou ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay soxna Souka. Mm-hmm. di nuyu Sénégal di nuyu. Euh, ñëpp ñi nga xamante ni ni ñu nuy teewlu kenn ku ci nekk ci turam ak santam mm-hmm. di kontaan ci invitation bi parce que c'est quelque chose de très important mm-hmm. di gërëm ñëpp di sant it ñëpp euh, di wax ni je suis d'être là c'est normal ndax da fee gëj. <laughs> dëgg la gëj nga fi trop sax. xaw naa eh. fee gëjandi waaye ni ngi leen di seetaan xam nga émission bi. Mhm. Euh, ci xool ko lu nu dëkk. Mhm. waaye daal macha allah alhamdulilah. macha allah mhm. Mamadou jën laa bàyyi li nga xam ne rek moom moo di politique. non non sax maa ngi politique waaye xam nga euh, nun politique bi nuy politique euh, ak politique gu TikTok yi xew. Mmh. ak politique yi di dugg ci Instagram ak yu ni mel loola nekkuñ ci loolu. Mmh. parce que nun sunu politique politique ku télé la ak rajo. waaw xam nga tele ak rajo léeg-léeg da ngay def kii ba noppi euh, duñu ko dagg duñu ko dagg di ko partagé. waaw parce que nun wax naa fi lu ne waaye euh, kenn du ko partagé samay doom dañuy ñëw ne papa xanaa euh, kii di bàyyi da bàyyi wala mën leen maa ngi politique mu ngi dem bi def bureau politique euh, communiqué yow journaliste yu njëkk ya nga wala yu bees <laughs> yéen a ngi gis communiqué yi maa ngi def communiqué parce que nun loolu lan xam Mhm. école di parti bi ñu jàngee euh, xam politique da ngay def communiqué boo defee communiqué jàll ko ci presse waaye xale yi kër yi. Mhm. noo ko du dagg loolu luñ ci met bu dee noom danoo préféré sonko buy nelaw sax noonu ñu partagé sonko ngi nelaw sonko yeewu na sonko wàccu na am am wàccu am wàccu lu ci jar. parce que dafa nekk ci bi lu ci jar partagé. Sonko nekk ci temps bi Sonko am lii jël di ko partagé euh, ba ñuy woo xale yi di leen ci ërtël. Euh, mm-hmm. nun nun li nu dafa gën a rëy. Mm-hmm. parce que nun wax nan fi lu ne wax nu ñuy développé dëkk. xale yi jël ko naan wuy yàlla na sonkoo ngi nii euh, partagé nan ko journal yi xëy di bind. da ngay def sa communiqué ba noppi rek Sonko ne eh, yaa rek waccu rek ñu ne waccum Sonko ma bàyyi la kenn doo la faale ci say mbir. loolu jaaduwul. mais Sonko moo nekk ci dëkk bi. ko ko tegu ci laataan muy nekk ci dëkk bi noo ko jiitu ci dëkk bi. mais yow ba nga gëjee génn ba nga gëjee ah, kii yàgg na génn génn. dañ noo faalewul xale hmm. yéen noonu bañ. xale yi léegi baaxuñu. kon léegi mënoo xool si beneen beneen affaire nga dugg ci internet bi nag. xale yi internet bi lañuy liggéey de. ngi xalaat sax léegi euh, keroog dama ne landing nan classante ndax mu tane. comme ah, classe genre nga ko blendé. ak landing bu ko defee bu ma ko classé ne ko aasi maa ko moom aasi mii maay boroom. waaw aasi maa ko moom aasi mi luy aasi aasi pédaay pédaay bu ko defee ne ko doo ci dara ma ne ko léegi yow it da naan ma Mamadou Diop moom moo dara da nga koo randal ah. Ablaye Wade la ko jox loolu buñ ko defee ken yi bës wala déet mais loolu du bës yow yàgg di yooyu eh, loolu dafa mage wala wala kii taxaw ci kii place de l'Obélisque lekk ne damay tëb wala ngeen taxaw dinañ xamaa dinañ ko filmer taxaw leen diggu Ndakaaru taxaw di ko Ndakaar lu ñu fay def <laughs> ma ne ndax lu ñu fa dem du xanaa dañuy soli daal balaa waaw déedéet bu ñu demee ka fa kii sa digg Ndakaar am na ku fa def naka su dul Baba Ndiaye waaw laaj ko waaw waaw waaw nga mu gis nit ku mel nii. a gis dëgg la yaa wax loolu moom. loolu nan la vingt trois xam loolu. ngay wër wax waaw loolu émotion la woon rek xam nga. lu génn na nit ñi ne waxal ma wax. ñun ñëpp loolu la woon émotion. mais Sonko da nangu li ko yàlla may. yàlla may na ko mbooloo te nit ñi dañ ko bëgg ci xol la. Sonko ci xol la nekk. xale yi xol yéen nekkatoo leen ci ay xol. daf noo remplacé. yow déet yow non non non yow mosoo nekk ci xol. Modou Diop man léegi léegi sax damay toog bu kii jekki-jekki sama gone yi sama sët yi la xam nga loolu kenn mosu koo gis. ah mais loolu dara nekku ci. li mu def man dama ne Sonko li nu ko defal ci diwtiir gi lan ko def. diwtiir wala ah, diw diwtiir gi am na ñu dul lekk diwtiir ci la ci lan ko def te ko moo tax supp ku ñam supp kànja bëgg sonk caa ciw diwtiir boo ko laalee bëgg sonk waa day wakaal ah day wakaal ah, euh, ah. euh, bi nee na li ma laaj dégguñu ko waaw kon waxaat mi ko jarta laajaat déedéet dama ko laaj ni ko jógee fële Colobane mhm. fañ ko téye woon bi ñëwee yow yaa jël micro wax ni c'est la première fois ci histoire politique nga gis lu mel nii yow mu soo koo ah. gis ci Sonko léegi lan la mën a ñëwaatee tey jii ngay nekkaat di revendiquer émotion la nee naa li xew tey sëñ bi ci lan war a wax mooy li xew tey li xew mooy so yow boo demee ba xamoo bii toog te mu bokk ci ñi xew yow lañ war a laaj yow Decroix foo ne bokk ci xew di def revue de presse di def chronique ndànk nag euh, dinañ dinaa xëy euh, xew far force <laughs> waaw leer laa leen parce que lii duñ ko seetaan. <laughs> léegi nan nga léegi yow lan mooy sa stratégie. farce saa yu sa Amadou Ba am na tuuti bës. Ah. Amadou Ba am na. maître El Hadj Diouf maître El Hadj la léegi tey mais ba tey am na bës mais yow kenn déggu la. lii bu continuer daanu xëy fexe nu xam nu far force. waaw noo koy mais noo koy defee parce ko yor dafa ëpp kenn mën su ko dégg. yow waay waay non waay. Ah, yaa ngi ci son yow. El Hadj lii baax na. mais yow lii def ko. non moom mi ngi feneen. non met El bi wut ko. lii ba bës jaralu ma dugg ci fecc man ni may wutee bës xam naa ko. mooy lan. yaa ngi nar ndax kii moom déedéet yaa ngi a a far parce que lii nuy jiin nu ko jiiñ terroriste gi. nan nu ko jiiñ. waaw parce lii nuy jiin Sonko du moom ñu na. ah dañoo bëgg a siiw. ba mu koy wax yéen na ci ginnaawam de. Ah, parce que ba mu Sonko di wax. Ah. maa nekkoon bras droit am kum tii nañ ko maa ngi nii. kon yéen daan ànd. waaw waaw. ah, ah. taxawaay. yow la euh, mana lii xew nii yëpp mana. dañ ko ensemble. maan man mii maa doon woote eh, kii li ñuy wax appel à l'est man a maa ko bindoon Sonko hmm. defutoon même bu Casamance bi ah ndax ma siiw ñu ne yow pourtant ñu ne croix ko parce que lii kenn xamu ko parce que si ñu toll nii boo jénguwut doo siiw léegi noonu euh, pare kon fi mu ne yow bi kan nga nar a jàppale parrainage bu may dem ñu naan ma yéen ay ñam man naan ma yéen ay ñam c'est que nag da a. Ah, yow yow benn buzz nga fi def muy RTS bi nga duggoon. benn buzz nga fi oh, defoon. waaw bu ñu lay diri ni la génn ci biti boobu buzz dañ nga fi defoon. dinañ ma diriwaat ci nii wala ci <laughs> dinañ ma diriwaat. mais jar na ko. jar na ko Sonko yàq na kii bi. yàq na ko dafa garaaw Sonko Sonko mi ngi ci prison bi teewul mu am buzz. Sénégal léegi yow la doon diri mais gis nga cent millions yi def. Euh, diri ci digg Ndakaar. diri. diri nañ ma ci digg Ndakaar waaye toogagoo ci digg Ndakaar. Ah, da déedéet leen ma def ci digg Ndakaar. waaw tey ngi nag tey ngaa bokk tem dem bokk ci Sonko. Ah? te ngaa dem bokk ci sonk moo gën. parce que waxal nga ko ay wax yu rafet de. ma ne nga nee nga mosoo gis xale bu mel nii mosoo gis xale boo xam ne am na mbooloo mu mel nii. loolu waxi démb la ginnaaw man danoo yaakaaroon ni bu nu ko téewee. waaw fi ne ñoo nekk ci te waaye da génn ceeb bi xamuñu la. xalifaa ngi ne lay ndeysaan keroog mm-hmm. day tàmbalee wax lañ ko nekk na ko sonko mu mu mu jaxasoo xamatut lu muy wax naan après ndeysaan jigéen ña naan ko waxal rek waxal après mu wax na bokkul ci complot bi de ndeysaan après xamut lu muy wax lii metti na metti na manqué nga opposition bi nag torop torop opposition amul parce que opposition yi xeex yi mu mënoon xeex yow ci Ablaye Wade yaa ko xeex maa ko xeex 2012 yaa ko xeex. mooy affaire fichier électoral. technique affaire technique xam-xam. technique nee dafa manqué ci opposition bi. wallaay maa ko xeex. maa ko xeex parce que man lool laa jàng. informaticien dama xam lu jëm ci wàllu fichier yooyu. waaw waaye Sénégal dañuy suul ndaanaan. waaw ndaanaan nga nga ànd ci ndaanaan nga ci politique est-ce que bokk yëpp. ko poussé gën a fesaat rek ci diggante. buñ ko hmm. poussé. Hmm. Sonko ci boppam lan war a yóbbu Mali. Mali sori na di. def ko malien bu neex mais coow lay ba pare boos bi da koy gën a topp ñu gën a fàtte ñu naan léegi man dafa am vraiment da nga koy nangu Sonko boo seetee gone mi ñëpp nga Mali. non mais bu demee coow mais man gone mi am am nañu nekk France extérieur moom. ah Mali Mali Sonko ko ko kii de. naat sori rek. Casamance yow da nga am ana parti bi fu mu ne man kay looloo tamit la. est-ce que dissoudre la ana parti bi dissoudre. <laughs> léegi ana parti bi moo ñeme yàlla. léegi ana parti bi kon tasul parti ba. yéen am ngeen siège fu siège bi ne. Ah, këram. fa la seen siège ne. fii la yow sa parti bi dafa tas. kenn déggu ne kan ak bokk. bari bokkoon nañ. comme kan ah bokkoon nañ laataan Sonko di ñëw. je crois leen dal nag yaa ko yaa ko yóbbee sa bopp. ah muy la élection législative nga naan da demal sa bopp. waaw ah, mais. mënoon dugg ci sa mboxloo bi rek ko def la député ni ñëpp. waaw boobu wax dëgg démb doon tey ma dugg. waaw euh, jërëjëf euh, euh, Modou temps bi jeex na. metti na lool ay ayca mu doon euh, départ musical euh, Souka Mbaye daane dalaloon Mamadou Diop Decroix ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal yéen ñu nu bokkaloon euh, plateau bi également tey nag dañuy nuyu nag soxna Umu Xayri si mu Serigne Cheikh i teew teewlu émission bi sa su ne soxna si si ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di la ñaanal jàmm euh, Oustaz Assane wax nañu yóbbante bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax si Malick di jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéen bokk bokkaloon plateau bi ak ña ca régie ba ku ci mel ni El Hadj Modou Diouf Abdou Top Ablaye Diallo Fallou ñoom ñëpp logistique bi également ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jaajëfal lu xew ban Senelec la bi àqu àqu àqu gars yi boo ko jàpp ma bi fan la centrale bi ah, moo am moom la ñu wax de ah Senelec xam nga moom yàlla ah, na ya mbaa kenn gaañu fa waaw waaw xanaa après ñu xool ko rek ayca ñu ngi leen di remercier bu subaa incha allahu rabbi su kaambay daane dina ma wutu ci toogu bi man ma dellu si incha waaye nag 21 heures ba tey suba dinañ dikk ak yéen ak timu ataaya àndandoog yéen à partir de 21 heures fii ci Taku Show ñu dellu si jeudi bu sobee suñu borom KPI moom sa bopp moom sa alal yombal sa dund ak boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show